Thiès habillement di grossiste ci ay tenues africaines boo amee sa boutique di jaay tissu bu leen neexee nga ñew indi sa marque ñu défaral la say tenue nga daal di dem wat ndax ya mom say tissu Yeen revendeurs yi tamit seeni partenaires lañu Thiès habillement amna ay machine ordinateur dernière génération Thiès habillement grossiste lañu tamit en chaussures Wa diaspora def leen seen commande ñu livrer len ko par DHL Yeen ñi jógee Mali Gambie Burkina Gabon ñew len Thiès habillement ñu défal len seeni paquet ngeen yobbu jëlal numéro bi 77 774 0971. 71 sur Instagram et sur Facebook chez Habillement officiel up doet de tigelo man. Zo te de mananelo. Lo wacht je nega neg, mena gees op peko. Mmm, baaietje ge. Sama mam, dana, wacht na nee. Hoe je doet je taken zo nauw, ja Sama mam, dana, wacht na xalaat gu su eh, demeewul noonu xam nga instant bi dañoo nekk say livraison gars yi dañ soxla instant bi Thiès ñun dañ koo téye suñu loxo booy authentique déco yi lañ doon am ay bâche chaise yu ñu leen doon yóbbul actuellement nii sawaay sax fala ne di décharger waxuma ko dara dama ne ko maa ngi ñëw rek vite fait jël jakarta ñëw fala bàyyi boto sax man li ma jaaxal mooy ba ma la xamee ba tey sa façon solin bii moom ngay def tëtin bi nga yor man moo ma jaaxal ñax ma yow dara safu la. nana nana yow ak say ñooñ Sénégal yëpp ñu topp sama titin bi sama titin bi sama titin bi wax naa leen damaa feebar damaa amee ocytocémie sama xel day nekk si nàmp aussi semi du coup ma bañ a nàmp leneen ma fàggu benn titin di ko savourer ndànk-ndànk. yow bu sa xel nekkee ci nàmp danga takki jabar kii comprendre loo. bettewu sa ma nag pour dire nga revenons à dama dégg sa biir wax nga ne yaa ngi bàyyi ma ci moom. nana jàppal ni Mafal Mafal Mafal Mafal Mafal du pain wala nana Mafal góor la góor yàlla bu dëgër. yow la moo yow nga bëgg jël Mafal rek def ko benn benn benn benn croissant wala benn pain wala nooyal ko ba mu nooy nii. Mafar dafa war a daj li jàmm yàlla di daj ci town bi hardcore bi dund muy métti temps yi mu ngi metti moom Mafar góor la dafa war a dund lii. loolu yëpp laay xam naa ko mais damay toog fan lay fanaan Mafal fan la nekk man xaw ma. Mafal fanaanul fenn fudul sama néeg maa ko héberger néeg ba lay fanaan ñooy tëddandoo ñooy yeewoondoo. bu mettee soit ñu laal akara wala ñu doxantu ndànk ba ci Ibrahima Mayga mu laal fa spaghetti bu sensible

nana pour ton information Mafal mu ngi ci vous ngi vous ñu si lañ man ak avez fenul deful leneen parfois Vous avez bi metti Vous ni mu wacc yaram bi di metti wala ñun ñaar am problème suñ avez problème mais anyway yef Vous yalla la dañ koy gérer rien d'autre ah, mais de Vous nga xanaa ma faal moo jug pour liggéey. c'est comprendre mu yéeg sama moto heure chargement jotee mooy chargé heure déchargement bu jote mu déchargé parfois sama xolu yërmande ñëw ma jàppale ko. yàpp lii rek moom amul leneen de. Euh, May dem naa ci dem gis na ko gis naa ko waxtaan naa ak moom. Euh, kilif ni mu waxee ak man du bàyyi tey du bàyyi ëllëg ankay ah. maa ngi moom wax xóot na euh, metti na tàng na mais tamit boo xoolee ba ci biir erreur bi yëpp ci ñun la erreur bi yëpp duma wax kenn dama naan ci ñun la parce que biram bu la joxee waru galam soxlawoo ko danga koy delloo dégg nga biram encaissé na xaalisam dem na ba ci biir mënatu koo may doom erreur am na ko delloo xaalisam voilà mooy yoon kilif euh, nee na li ko metti mooy un million bi fi des moom la mënta muñ te nee na du ko muñ man nag wax dëgg yàlla mere naa kilif mais biram laa gën a mere. mooy voilà baa ngi nii fi mu nii këpp na sunu kaw. mom ma nga tëdd hôpital mënul bopam dara kilif teman du bàyyi te man gëm na ne du bàyyi te et mer na nag trop bët yaa nga xonk cur nee alalam du ko bàyyi ginnaw mukk mi nak sa bandi la gis nga ngari bakkan ken du ko jënd dara te man damay dem ni rek may nekkuma ndax man xamna ne amul fit xalé la xamul dara te temps yi ragal na ragal go xam tankam sax génne ko ci mbéd mi mënoko koo menacé. ndax ragal démb damaa tëdd ba ay deux trois heures du mu fëgg ma yaay yaay yaay yaay ma tiit mu ne ma ñemee ma sama néeg dafa mel daam lu ma tiim te loolu musu ko def loolu bu ko defee fii tam moo daratul xelam moo ne ci lii ko kii menacé man nag daal li ma bëgg nag moom mooy mhm. un million bi ci des mhm. ñu jéem a aw fii nga aw fële ku ci nekk la nga am ñu boole ko jox ko un million moom suñ ko joxee un million nag mu taw a bàyyi dëkk bi am na yoon gis nga kilif mi ma gis ni ak ni mu waxe ak man bu doon fay ak fay kese la munoo koo fay munuma koo fay parce que xaalis bi du 1 million kese kilif nee ma 1 million bobu sax taxu mu gën ko top mais nee ma amna lu mu daan jox papam amna lu mu doon def ci xalé bi te tamit chaque jour doon na leen jox xaalis bo xamne xamul fu mu dugg te mom xamatul nu mu toll te som bobu dafa bari xam nga tam nit ki boko dul seyel da leen doo ko seyel bu laal xaalisam bu doon 3 millions lañ tak delo ko xaalis yoyep du ci feeñ parce que dañ nan mom mo leen ko yene mo leen ko mayal mais 3 millions et 2 millions mo fa dem. jaaxle naa mais ma laaj la bu ngeen toogee du nek fofu di ndax dina nek ndax du tok xelam du nek ci man ah liggéey bi ngeen liggéey ngeen ci gis sen bop ñu ngi sant yalla parce que liggéey bi metti na trop méttiwul tali bi ñu jangonté lay problème parfois ñu arrêté ñu fi laaj ñu ay samp ak simp dañu sonu

sank ba tay yang ma top sujet Mafal kese kese kese kese nga may bëgg a yo sa xel dafa ci si Mafal xana wal da da nga bëgg fal ñëwaat. gis nga naa la wax affaire xol du bëgg di bañ. ah alors. te man nit kese laa ak lu ma mënti def yeb bien vrai que ni mënu mako ko baal mënu mako faté mënu mako baal mais Mafal la bëgg. yow nana yow Mafal nga bëgg xol du bëgg di bañ kon yow déjà da ngay naxé yow Mafal deful la fi lo xamanteni ni mosuloo def bal nga ko xeetu bal bu ne kon lii xaw ma la defat actuellement ni ba nga dàq genn ko sa kër c'est pas diable nana xamal lan la wax ji xamal lan la demal nga jëli Mafal nga indiwaat ko tek sa wet moo gën nga tok fi dima bëgg ray ndax mu ngi def li mu ngi def lee mu ngi def lële yow bëggoo ku dul Mafal. dafa am loo xam ne na ko comprendre gis nga Mafal je lui ai donné toutes les chances du monde ça veut dire chance bu ne jox naa ko il n'arrive pas à changer. Et c'est quelque chose que moi-même, j'arrive pas à supporter. je ne peux pas être avec un homme qui il va continuer à me mentir, nek di me tromper. Imaginez le que je suis Nana. Tu sais ce Je ne cherche même pas à savoir ce que je Gis nga si tu as un homme fen wala góor bu lay trompé moo ma nga bàyyi Mafal yow nanaa la leer ni di 32 000 gour. parce que góor ni mooy ñun ñëpp ñun ñoo yam

Euh, li ñuy def mooy dama lay defar benn chèque ah allons-y naa la déposer ñu dem banque ba tu vas récupérer ça comme ça soo demee nga joxal ma d'accord. Mais nag baa xamul ne man maa fi woo. non waxu waxuma ko dara. baa xamul ne xaalis ma lay jox aussi pour. Eh, nana xamu ci dara te moom actuellement ni lu jëm si waxu xaalis boo ko waxee wala nga jox ko ko am nga ko parce que dafa doon nijaayam sama ñoom papa la doon dërëm la ñu bëgg famille bii.

man ma la gëna nek ci problème fop man ma ngi sama mag ni tëdd fee chaque jour ma am problème pour ordonnance ordonnance bu dem benen dik mais man bo len di def ni sama kaw fan la jëm mais man tamit nit la quoi yow ya ci gënoonu dëgër tey bu dee da ngay taxaw ak man di joy man fan la jëm. lii dafa metti. mais ba ci lan. tuuti xalé la xamul dara. wa d'accord mais xamal lan la am ay yàllaay ñak yalla yalla ay buur man ma ngi fi mel na ni biram mi ngi fi bu leen am len do len tit bu leen am loo ragal jël na sama responsabilité jarul joy. ak tey bu tuuti génnee. mu gañ ko mam rek man may perte. non non doo ci perte xolal xam nga joy yi ni tamit xam nga man man tuma résister li quoi parce que ta bu nu ma né ci ay eh, problème ba paré ngén joy sama kaw ah bu ma fal jugee di joy fé ké di joy fi ki di joy fi mais tamit man nit la damay exploser yow ya ci gënoon a dëgër mais do téye résistance mais résister rek yalla baxna arrête ah yalla dafa wax kenn dara bàyyil sa joy dégg nga maa ngi ñu dem parce que dafa am ben ordonnance bu ci desone pap dumbu nee na mu ñëwee na mako jox ma jënd ko fa laa jëm su ma ko demee jënd xamna fi ak ay fan moom dina génn après ñu nekkat ci jàmm 1 million bee nak bor la rek bor la parce que moko fi andi won ñun top ñu ko mo andi ko fi après lool lepp lu ñu régler problème menacé bi nak man xamna naa na may def ba dootu ko menacé jàmm na ñoy xaar ma jug dem rek la ci loolu pour mun a yóbbu. Pape Doumbouya mën na nekk chaque jour muy jënd ordonnance chaque jour di laaj man mënuma chaque jour di laaj ordonnance am ñëpp moo ko jënd. mais amul problème moom mën na ko man sama yoon nekkatu ci loolu man sama doom bi rek fi ne boobu tuuti rek boobu def. tuuti non xoolal la gis na may na xolal tuuti dina am jàmm tuuti dina am jàmm dina am salaam parce que kilif moom ñu ah te et puis yoon am na menaces yi bu ko arrêté wul damay def li ma war a def xam naa li ma war a def mais lan la. biram la lépp biram la. mais moom la biram la parce que yow dang ko dan yar man damay ñew fi di wax ak biram nga na mo no biram ni biram na li la gisoon mais nak problème bi moy comme lii am na ba pare nañu gor a góorgóorlu ñu teyé suñu self japp suñu morso njàmbur xol nañ koy réglé bëss dina ñew li yëpp ci ay nett la lay mujj ok maa ngi la dem hôpital te ñëw incha allah. yal na ma yàlla dimbali la sàng ma sutura ba sama doom ji dara du ko dal. waykat bi waykat bi way na up, you wake up. Nyan up. Wake up, you wake up, you ain't up. j'espère que dóoroo ma ñàmbe ma fal waaw bàyyil bu ñu liggéey yëpp ba wacc. may def décompte liggéey na versement di la jox sa part jël sama part nga ma ay waxi Doro. non man dama lay wax rek xam nga dama la jox confiance confiance bobu nak moo koy delloo ma fal yaay patron wala man may patron non yu mag yow amatul patron dañuy liggéey seddoo ñu man maa la jël nga amatul patron dé. et puis ma fal beneen affaire dafa am waaw bàyyil buñu waccé, wàccee ba ñëw si bi yaa ngi comprendre ngay ñëkënté ak man sangu ma fal yi boo duggee si douche bi xamoo génn sang ba tay man lay xaar pour sangu ah, yow xam nga ma man damay gérer man damay gérer. mais est ce que xamal leen. waaw li mu la jox nii am na lu ko dàq de. versement bi daa am lu ko dàq. lu ko gën a neex. lan moo gën a neex. ma faal am nga fi trois cent mille. trois lay tegal di. booy dimbali ma waaye yow. eh ma faal sànq bi ñuy wàccee farandu xaadim bi. waaw maa la naan continuel maa ngi ñëw nga naa ma da ngaa bëgg lu yomb bàyyil bu wa heure wàcce saa ko jotee rek nga dem ba ma fi. waaw nanaa moom moo woon. kon loolu woon. c'est assuré. nanaa lu doon doyee. Hmm, moo da ngay dof moom woo gàlle ma. booy gis nga addina daal moom noonu la ndax nag nanaa wax dëgg yàlla xamoo yow ñaata yoon mënoo koo compter nga tooñ yàlla sunu borom mu jéggal la te tooñu yàlla gën a foor ñaata yoon sax nga tooñ ay doomi aadama ñu jéggal la ah nga bàyyi ma faal ci dëkk bi muy tuñ tuñ rek ah di liggéeyantoo ko foraatu rek. bo gisee ma fal mi ngi melni dof tal ta sangu tal ta lek tal ta nan xelam mi dem ah jéggal ko te am la ci mom man sa bay la buma la ñane war nga ma mën a may ah. waaw. waaye dafa fekk ni ma faal man mënu ko baal mënu ma loolu. te li nga ma koy waxe yow tamit. ah nene nan daa la koy waxe nit ko mën baal am na. yow da nga bëgg nga booy tooñ ñu baal la ah. man su may tooñ it dinaa xool ni may tooñee doomu aadama wala suma ko tooñ it bu ma ko ñaanee pour mu baal ma dina du doon nu rëy ba dina ma baal. yow ñaata yoon nga tooñ ma faal ah mosoo tooñ ma faal. mosuma kaa tooñ. yow mun ngaa waat ni mën nga seeg nit te doo ko tooñ da ngay tooñ ma faal da ko dul wax wala di ko lëbb ndax ma ma faal dalaa jox respect. bocci sole sax mu ne yaaramu kallaa ah masaal ma faal foo jaar sax mu tëdd fobeereel la ko jéggal ko waaye moom li ma def mosuma koo def nga jéggal ko dootu ko def ah li ngeen di def rafetul jigéen du du du du jepp góor ci point yi jekk ko ab jekk boo xam ne dégg maam da koy teg naqar yow parce que xam nga ni mafaal fi mu toll nii àndatut ak sagoom nga utiliser loolu rek ah nana yow lolou ngay def rafetul. ba mu demee ba xamné ne su ma ko bàyyi du ànd ak sagom c'est la warona régler tok fi mu wara tok toog. tayu ko ah. dañ koo piégé. Hmm. waw affaire bi man boo jubóog mom dina la wax ni mu demé dañ ko piégé ma faal dañ ko nax ma faal leem ak xolam ci jigen dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa doy waar ma nga ne jaxeer ba ko kilif ambalé euh, euh, euh, ba légui ma faal xolam bi. lu ne la ca daj lu ne xolam bi jeex tàkk bu dul woon mafaal mii dégg maam maag sama doom ci jaxeer tos ko nañu kon nga war a xam ni nit ku am yërmande ngi noonu. gisuma ko damaa toogoon ak moom. wala lu la doon doyee. defal ndànk nee naa moomoo ba gàllem ma yaakaar ne lu la may doyee nee naa toog ana mafaal mu ngi si jàmm mu ngi lekk mu ngi naan li ngeen di liggéey mettiwul booy di ma bëgg a rey ak ay question non non je t'assure bu je ma a bombarder ak en question ma fal nii ma fal naa ma fal nële constat ma fal du suis sax grand boy, je la ma fal parce que je bi moom mooy moo xam ne def la baax ba je lu leer je suis te mën nga jëli sa jabar moo Je nga nekk fii di ray sa Tu di tëdd nelaw di Boy, lu ne nga dugg si ñi fay ne de nanaa yow la bëgg ñaabe kon xale bi daf maa nopp ba tey. looy jooy. man foofu dama faa liggéey kër googu. waaw ah, yow dimbali mooy nga xam ne ma fa. man xam naa ni man la bëgg mais yow nga ni ma man tey su ma demee ne dina am dara. ma demal nga dëggal sa bopp nga récupérer sa jabar yow la bëgg ndax yàlla sax man nga libérer ma sama pukkus bii ma nekkaat samay mission. yow xam nga damaa bëgg na naa est est-ce que xam loolu non li ma bëgg nga xam est-ce que man xam nga ni nanaa laa bëgg. ma faal loo bëgg ma nanaa nanaa bëgg na la lu ko raw parce que man tey nanaa nu ma wooyee nii di ma laaj ma faal suba ngoon guddeeg bëccëg ngay xam ne booy bi mu ngi yow ba tey. moom moo la jox trois cent mille pour ma jox. trois cent mille la ma jox pour ma jox. jëlal trois bi ma indil moo ma neex. ma xam naa la ma faal sama papa yi seen nijaay di ngeen a bëgg xaalis bàyyi ma jox la sa xaalis rek loo ma si compal léegi teel ma xaalis bi. loolu nga dugg sanguwaat dem si na naa <laughs> eh na nga ko def yëpp góor nag waxuma la nga dem foofu di jooy de dafa bëgg jabar ji quoi barki yàlla mi di dina ko dofloo kii mu war bopam dëggal boppam récupérer booy bi wan ko ni moom góor yàlla la et puis sama traite la bokk man kii man mamal jaaxal na nit ku baax la ah torture nga doomi jàmbur di de dama lay wax rek ab xol nag du oom ba lu koy bës yàpp la ak deret nga woye falal sa xol bii té ko né bëgg ko kudul ma faal c'est pas vrai ma faal nga nop bul fi jéem sisu kon loolu la xam moo tax muy def yi def. waxu du loolu du loolu yow la ma nga né jeex tak misère ba waw koŋ ah ma faal di nekk ay apparenté di yano ay bagage ak di yéegal loolu loolu loolu loolu rafetna nga toroxol ko noonu loolu rafetul. papa dal li la mëna wax lenn la lépp boobu tay bo fi wax ma faal rek nga may wax té ma faal nag fa dëgg neex yalla bëggutuma dégg lenn lo xamni rek day am rapport ak mom bon nag dama la koy ñaan bu fekkee wax ma faal moo la fi andi boo génnee kër gi bu fi tegaat sa tànk. waaw waaw ma bañ fee tegaat sama tànk man ma faala tax ma xam la bu ma ñëwee ci kër gi lu ma fiy def lekk ak naan am na fa ma ne lal am na fa boo fi ñëwee ma faala ma fi indi ndax ma faala tax ma xam la waxi ma faal daal moom fi indi dégg naa nag li nga wax àddunaa ngi suñu kanam baax na waaw baax na jërëjëf. jërëjëf.

Je suis d'après mes investigations nak, sais tu n'es plus un homme marié aussi pas ah. célibataire j'étais mariée et malheureusement j'ai perdu mon mari ñu amoon communauté de biens te lépp man maa ko doon d'ailleurs hôtel bi ñu nekk ça m'appartient te boutique bi ma fekkoon aussi maa ko moom te loolu yëpp pare naa pour bokk ko ak yow su ma sañoon nag nga dëgël sa bopp Seyna dégg naa la bu baax waaye man dama doon góor boo xamante ni sama jabar bi nga xamante ni moom laa divorcé elle m'a toujours gâté divorce bi ma divorcé nag man mii maa def erreur man maa ko tooñ ah alal ji nga tudd man fëkkuma yo man matok, na di suur mbëggeel ndax man yaakaar naa ne dootuma bëgg keneen ku dul nanaa mais nag bi ma fasee ba léegi maa ngi daan sama doole nag di wut lu am yóbbu ko sama kër gale bokk ak sama nijaay ak si waa këram tu es une grande dame kenn du la gis dila bañ waye man la sama jëm ak sama xel ak sama xol talul ay mbëggeel ndax man lima dund ak nana dañagul sama xel dal moo tax suma sañoon nga bàyyi ma ma waxtaan ak sama njeganaay lepp lu ma jox rek man dina la revenir comme ni nga ko ce rek kilifa ngay waxal j'ai pas beaucoup de temps à perdre si liggéey laa nekk matin midi soir bëriwuma sax lu may génn ndax aw ma jot kon tey su ma invité c'est parce que tu es spécial pour moi te dafa mel ni tamit juumuma ci samay choix ndax nit ku am grandeur rekk mooy def ay erreur di ko reconnaître te kooku nga dundal lu neex ba tey nga toog ak beneen jigéen di ko ko wax gëm naa ni boo paree dëggal sa bopp pour nekk mag def yëfu mag ak man dinaa la defal lu raw lu la kooku doon defal lum la defal benn dinaa la ko defal diis nga xeeb xaw ma jot nag vraiment j'insiste waaw kon doo ma may rek feek ñaari fan daf ma bett xalaatuma woon lii su ma demee ma def

pare pour yow. maa commandé woon fe mu Hamza. mu hmm. non tay menu menu bu riche fi am. lo bëgg bolognaise ñu andé pizza nga lek. zena gëj lek lu neex de. loolu jeex ma xaar ko. xaar ko merci. merci.